simili ak ñaar. au Sénégal un jour le monde tey ñeenti fan ci weeru ñuy fàttaliku ñaari at ci ginnaaw maanaam atum Euh, makkaanu Les Échos muy benn ci yéenekaay yi nga xam ne euh, dañu koy jaay fii ci réew mi dañu ko vandaliser woon maanaam euh, benn kilifa diine ay taalibeem ñoo fa wàcc caxat caxatee ko andi fa ay yàq yàq yu bëri ñoom nag daal lañu la leen naqari woon nee ñu seen sëriñ la yéenekaay bi xamle woon joxe xibaar ne dafa am coronavirus jamono jooju nag mbas mi lëmbe woon na réew mi ba indi woon njàqare bokk na ci li ñuy fàttaliku tey ñu seetaan ko dellusiwaat ñeenti fan ci weeru août 2019 ci Sénégal ñaar fukk ak juróom-benn kàngam bokkoon na ca réalisateur militant antiraciste ba fekk baax ca Amérique Danny Glover doon sàkku nag ci ñu bàyyi euh, Guy Marius Sagna moom militant système boobu jamono jooju nag ñu tegoon ko loxo fukki fan ak juróom-benn euh, ci weeru euh, sulet gannaaw ay xibaar yi mu biraloon doon wax ci mbirum terrorisme. ñuy fàttaliku batop espagnol boobu di Almadraba UNO te taxawoon nag euh, ci île de la Madeleine ñeenti fan ci weeru août 2013 euh, loole nag taxoon na ba ñaari euh, armateur yu fekk baax ci Espagne benn matelot fekk baax nag ca Ghana ñu tuumaaloo leen ci mbir moomee ndax kat bato ba fa mu taxaw sax nag bato dafa amul sañ-sañ di fa daw xamuñu woon lu ko waral waaye la ca gënoon yéeme mooy la ñu fekkoon ca biir bato ba muy ay xeeti tooke yu mën a kalaate saa su ne waaye ay jumtukaay yu takku yu soxal wàllug napp ñooñe nag ñu tegoon leen rekk ay daan muy juróom benn weeru kaso benn bi ñu koy tëdd ak alamaan ju ëpp ñaari milliards bu njëkkoon haute volta la ñu doon wax ñu dem ba jëmmi jamono ñu naan Burkina Faso réew ma nag soppi tur ñeenti fan ci weeru août 1984 jóge ci haute volta ñëw ci Burkina Faso jamono jooju conseil national de la révolution moo fa nekkoon Thomas Sankara jiite woon ko ñetti at nag ci kanam ñu faat Thomas Sankara fukki fan ak juróom euh, ci weeru octobre 1987 gannaaw ab foqati nguur gu ko fa jëlee Blaise Compaoré jiite woon ko you ñuy taxaw tey ci ñeenti fan ci weeru août 2020 euh, bëccëg bi ñu songee yéenekaay bii di les échos euh, caxat caxate ko lépp nag waralu ko lu dul ab kilifa euh, diine jiite parti politique ñu xibaaroon ni dafa amoon jàngoroy mbas mi gannaaw ba ñu ko saytoo ci àdduna nag ay mbootaay yu yëngu nag ci lépp lu soxal wàllum tasum xabaar ba fii ci Sénégal ñu doon ko ñaawlu bu baax a baax ñu ne nag lii faw rek ñu jël ay daan yu diis teg nag ci kaw defkatu ñaaw ñaawteef yooyu Ndeye Khady Diouf taskatu xabaar la chef de desk politique euh, ci Les Échos mooy delsiwaat euh, ci bëccëg boobu ak nanu ko dundee. y avait un inconnu au bout du fil mu wax ma ni que dafa bëgg xam jiw lu koy fan la nekk naa ko tegtal parce que dafa amoon lu mu fa waroon yóbbu mais xamul adresse bi donc mënutant de rien ma jox ko adresse bi et je lui aussi donné le numéro de la secrétaire pour une fois bu eggee je pense que vers 14 heures que je me suis les messages pleuvaient. Des confrères de yeneen yeneen rédaction yi les gens appelaient. j'ai même pas déjeuné dama jël sama bagage mu ñëw au bureau et on fekk fi nit yi commencé rassembler aussi suuf c'était un peu retourné y avait les enquêteurs et donc je suis les voir expliquer leen on demande demandé le numéro ma jox leen effectivement c'est par ce numéro la qu'ils ont été tracés ci lañ leen localiser ñu ñu ñu leen. le gendarme bi ñu doon déglu euh, me dit que c'est des jeunes c'est des jeunes de d'une vingtaine d'années de la vingtaine donc euh, c'est à cause de li ñu waxoon ni que Serigne Moustapha était atteint de de la Covid parce que on a dit que c'est des c'est des talibés supposés des moustarchidines voilà des c'est des c'est des c'est des c'est des moustarchidines voilà quoi je me suis man naa leen jox. Euh, adresse bi c'était un peu de ma faute donc ça m'a un peu marqué. maintenant quelque temps plus tard ma dégg ni que dañ leen euh, libéré sous caution ils étaient au nombre de six mais tous libérés sous caution donc euh, la conclusion euh, le constat je veux dire mooy que ni malheureusement au Sénégal on peut s'attaquer au à la presse la procédure peut être entamée après ñu riiral fii que ni jàpp nañu diw kii nañ ko fii mais du egg jamais donc je me dis que suñu bëggoon tey ji mettre fin à ces attaques il faudrait penser à égaler procédures yi que les gens payent pour ce qu'ils ont fait puis voilà quoi un peu décourager par rapport ak euh, ñi am projet bu attaquer la presse. Euh, li xew le journal Les Échos euh, lu ñaaw la d'abord loo xamante ne dañ koy ñaawlu ba fu mu mën a lu ñu bett la tamit ndax jàppoon nañ ne Sénégal dépassé nañ foofu. muy loo xam ne ba léegi euh, du nu ko fàtte euh, mu xewoon euh, ci yéenekaay bi di les échos El Hadj Malick Thiandoum c'était le 4 août 2020 oui mu nekk euh, lu nga xam ni euh, ba léegi rek euh, dañ koy regretter parce que dans une république normale lu mel noonu warul am rawatina ci taskatu xibaar ñun ñëpp on était scandalisés mm-hmm. par ce qui s'était passé parce que bu ñu fàttaliko njiitu Moustarchidine wala Moustarchidat muy Seydou Mouhamadul Moustapha moom la ñu waxoon ne dafa ame jàngoro coronavirus bi mm-hmm. loolu moom moo naqari ay ñoñam ak ay taalibeem ba ñu dem saccager lépp fa nekkoon ordinateur téléviseur matériel lépp la ñu saccagé mettre ko sens dessus dessous et heureusement parce que bu fekkoon ne xëy na fekk nañ fa ay nit munoon na mënoon na mënoon na demee neneen mm-hmm. donc euh, mënoon nañu def rek démenti yam ci ni loolu amul et puis voilà on passe à autre chose mm-hmm. mais de là à attaquer benn organe de presse comme ce qui s'était passé récemment euh, lors des élections yële passé ñu ñëw attaquer euh, GFM bi passé gis ngeen li nga xam ne moom moo xew Walfadjri et cetera donc je pense que ces pratiques là doivent cesser il faut que nit ñi aussi dans un pays démocratique bàyyi la libre expression que nit ki def liggéeyam ci akulaay taalaam bu fekkee ni wax na lu nga xam ne jàpp nga ni du dëgg diffamation la am na lu la yoon may nga def ko mais ci réew mu nga xam ne dafay dox mm. normalement fajal sa bopp war na fi mun a jógee c'est ak loo mer mer muy euh, mbir moo xam ne bëggoon nañ ci gën a taxaw malheureusement euh, waxtu wi moo nu xoj puisque 7h20 jot na ñu dem léegi léegi ci xibaar yi ci gàttal ak Chérif.